sëñ Habib Biaye ñu ngi koy sant bu baax ci jëf jooju di nuyu mbokk ya fa nekk yépp diggante Treichville ak Adjamé bàyyiwunu kenn nuyu itam mbokk ya ca Mali ndax yooyu samay bërëb lañu at mu jot dinaa def ci diggante ñaari dëkk yooyu lu mat cinq conférence kon maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn beral nuyoo nag sunu soppee sëñ Fallou jóob fii ci RTS 1 mu ngi topp ak oustaz Souleymane Samb mi nga xam ne bàyyiwuma ci dara maa ngi koy ziar ku ñu sunu mag yu baax sëñ Modou Ndaw ca taalibe sëñ Modou Faati Xëri maa ngi koy mat sawu ci sëñ Seex mi wàcc liggéey mu ngi topp waaye sëñ Moustapha Ndooy bu setikoo maa ngi koy nuyu ak DG ba di Ahmadou Dee ñu ngi jotal seen nuyoo di ànd ak ñun ci jataay bi ak sama xarit nag euh, Lat Diop mm-hmm. waaw Lat Diop ku baax la mm-hmm. Lat Diop lu ñu wax ci mbaaxam rek ñun ñu dëkkee ci banlieue côté Géejawaay yu jëm parcelle ñoo ko xam mm-hmm. dimbali na jeunes yu bari ci créer emploi dimbali na ñu bari ci wërsëgam te ku bëgg sëñ Abdou Lahat xam naa teraanga yi muy def. waa sama xarit la te xam naa teraanga yi muy def. sunu xarit sunu doomu day sëñ Maxtaar Ngom bii màkka la ko jox. jërëjëf. waaw kon nu ngi koy ñaanal moom sëñ Lat Diop yàlla na ko yàlla sàmm. te jàppale ko nag ndax réew mi am nañ ci moom yaakaar mu ngi jëf-jëf yu am solo ci banlieue bi sunu soppe la nit ku baax la koo xam mu ngi dimbali askanam yàlla na ko yàlla taxawu te jàppale ko dolli ko ay garaat gën koo fal nga laaj muy place éducation bi sëriñ Touba indi ci ndaw ñi xam nga loolu laa doore woon waxtaan bi boo seetee wax naa ci lu bari sax sëriñ bi daawul wax lu dul kan moo la yar ku la yar parce que xam na ne yaray defar nit nit bu yaruwul amul dara sëriñ Bay Jaxate radiyallahu taala anhu di taalibe Sëriñ Tuuba di doom doomi maam Xaadima Jaxate kala yàlla yàlla dolli leen ngërëm moog wéejuram bu tedd ba yépp dara daa wax benn taalibeem bu tudd Assane da koy defal dénkaane mu ni ko rikk Assane lu mën a xew awal ndigal te yaru yow kon di nga làqtu wépp yiiw tay ak ëllëg maa la ko wax mbooleem ngëneel lu dee fi wut yaroo ko gën gën gu rafet yaroo ko gën gën gu rafet ku la yarut moo la nax rikk Assane jàppal ci jile wax ni ko ku amu yar ñàkkul dara ku ñàkku bi yar amul dara yàlla na nu ko sëriñ bi jox ni ku faboo ni junni jox la yit te jàpputu bi yar jox la yit léegi nga gis junni yoroot boroomu bi yar for sex nee na ku yaruwul matu la yor ku yaruwul matu lay yër ku yaruwul alko na far ku yebu tàbbal ko ci mpax ndax dañoo xam fi yar nekk sëñ bi comme daan joxe day wax bu dee daraa ngi manqué bu àlluway manqué sax bu yar bi manqué ndax xam na nit lu mën a xam te yaruwul du ci jariñu mu daan yar mag ñi nag ci ay principe ay gëm-gëm di leen yar ci fonk liggéey boo jëlee rek ci askanam jël ci njabootam di ci gis ñu fonk liggéey njabootam xanaa xamoo sëriñ saalix mi ñu jox ndaw ñëpp mu dimbali leen ci tarbiya la leen jaarale day na yar ba ñu yaru mu duy leen xam-xam ba fees Serigne Saliou bi muy taxawali dëkk ay ñaar fukki nangam la la la taxawal ay tool di bay di fàggu addiye ju lew di ko jox ay kilifaam ay magam sëñ Abdul Ahad bi muy sañ ci ay dëkk ci ay ñaar atam lay toll sëriñ son yi bu noonu di ci fàggu si seen mbay di ko dundale seen njaboot ngir bañ dara lu rax dugg ci seen jaamu yàlla sëñ moodu Moustapha al Karim bi muy wuutu sëriñ Touba ñin fukki at la am waaye daa fekk sëñ Touba yar ko ba mu ni nemm jàngal ko ba mu ni xar waajal ko door koo jox yoon wi dem yar bi mu ko defal tax mu mën a wuutu sëñ tuubaa te kenn jooyul xanaa xamoo nii bi mu waree jële raay bi mu indi ko Touba diggante boobu tubaab bi jaaral nañ ko foo xam ni buñ ko waajalul woon du mën a nekk waaye sëñ bi da koo waajal ba mu mën koo dékku mun dinaa jële raay bi fii ci njaarim yóbbu ko ba Tuubaa te dara du yàqu fexe ba biñ nee ko nappe phréatique bi egg na vingt cinq mètres te soxla nañu ndox mu ne am nañ ñu ko gas ñooñ ñu yar lañ moo tax tubaab bi ni ko ñiy liggéey faw nga fay leen seen salaire ndax xamuñu exploitation mu ni d'accord na waaye ku mu fay fukki dërëm buñ la fayee sa salaire da ngay bàyyi ba timis nga wiiri joxaat ko ko hëddiya dañ leen a yar a tax ñu bëgg sëñ Tuubaa muy dëgg ci ñoom ñu yaru xam ni sëñ Modou Moustapha ne nii yar boobu sëñ Touba indi ci loo xam ni ba ci langage bi sëñ Touba jàngal njabootam boo ko teg langage su keneen fi benn murit bu sëñ Touba yar doo ko dégg mu naan sama jabar ah sama soxna doo dégg mukk ñun diw dee na nga koy wax murit mu naan la diw dee na ah diw de moo noppal wala moo wàcc ab liggéey ndax xam na ni liggéey ñu fi indi ku sa liggéey mat nga wàcc te loolu kat. jar naa xam ndax tubaab yi sax xam nañ ko boo jàngee tubaab ba qualifié ci am na lu ñuy wax euphémisme ci les figures de rhétorique tey bu ñu bëggee wax ni diw il est mort pourtant bu leen neexoon c' est possible de dire qu'il mais au dit il a rejoint la mar au dinosaures c' est une façon de dire qu'il au bien il est passé par le trépas au bien il s'est éteint il a rendu l'âme voilà ah il a tiré sa révérence yëpp ay façon diw dafa dee la mais dañ koy rafetal sëñ Touba ku mu yar sa langaas day rafet xoolal diir bi mu nekk ci biir nasaraan yi te du jëfandikoo waati nasaraan te ñun ñii ku ci dem ci ab tukki rek boo fa defee ñaari at boo ñëwee soppi langaas loo wax dugal ci baatu làkk booba kon mooy yar sa bopp yar sa njaboot ci li ñu moom nga xam ni murit dafa am nu muy waxe murit warulaa jox kafe nga koy naan mu dem ba kafe gi mat mu naan la jeex na jeex na duñ ko wax ci murit dañu café gi mat na ndax café jugu fi am na fi waaye mat na mooy li ma doon moo mat loolu façon langage bu rafet la kii sa mag nga ni sama jëwrin la loolu façon waxin la soo waree laal ndox nga ni damay yeeslu façon waxin la diw dama koy may sama doom dañ ko ko doon fasal te xam ne ñoo fasal ab diggante kon yoonu murit langage bi mu njëkk andi mooy yar bi sëñ Tuubaa def ci mag ñi nga xam ne yar bi def leen topp ñoom ñëpp sëñ Mbay Jaxate daa nga nekk ci këram ñeen fukki at ma lay tarbiya doo dem ci jataay doo gisee ki jigéen 40 ans bala bu laa gërëm ndax yar bi mu daan def ci nit te kooku sëñ Tuubaa ko dimbali am na ku mës a jël satal ak maam Cerno ku dem ci téere bu ñuy wax wasiyatu niswaan bu sëñ mu saaka da nga ko fa fekk daa jël satala maam Cerno te àbbu ko rek dem di ko jëfandikoo maam Thierno ni jëfam ci ñaaw na ba mel ni ku doon jël lu wéejuram moom wax ca wax yu doy waar yoo xam ne su ko wax sa cib télé pour war la kon yar bi yoonu murit am ak teggin gi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Bachir bay wéejuru sëñ Muntaxa wax na ni maag sëñ Touba jaar nañu foo xam ni bi sol naa loo xam ni yére daa rafet lool rafet ga ak taaru ga tax ma ñëw ci sëñ Touba mu mel ni sëñ bi daf ma wan ginnaaw ndax li ma soloo rek nee bi ma comprendre ni lii ma sol moo xaw a adduna we ma dem soppi ko solaat yére yu tolloo yow gën a dëddu àdduna ba ma ñëwee sëñ bi dafa muuñ daal ni ma hëkasa nii laa ko bëggee sama doom addunaa koy wuti waaye di wuti àdduna nga xam ni ñoom ñi mu tarbiyal boppam ñoo gën a yaru ci àdduna xoola jataay boo mës a toog ci jataayu sëñ Saaliw xool ni muy tooge bu lay xool sax dangay xam ni ku bari kersa moo lay xool xoola jataayu sëñ Abdul Xaadir ni muy tooge ak sàmmonte jig sunna si xam nga sëñ Abdul Xaadir tey ñii di coow naan sunna sunna sunna ba tey ni mu doxee sunna kenn mënu ko doxe dëgg la fi ne yanant bi lu ngeen di def na ngeen di jiital seen di joor moom oto bu ciy dugg daama dëgg la xam nga yow bu fekkee su chauffeur da lay dawalal sa tànk goo sa war a njëkk a dugg waaw sëñ Abdul Xaadir droite bi lay duggal day wiir nii lay def dëgg la lu metti metti droite bi lay jiital dëgg la ngir rek jëfandikoo sunna kon sëñ Tuubaa yaram modèle boobu il faut nu andiwaat ko jàngal ko sunuy ndaw dugal ko ci suñuy daara di ko jàngale jël ay téeréem di ko tasaare ndax bu dee jigéen joo xam ne nangu woo sëy te yàlla tax daf ci def dénkaane wasiyatu Penda Jóob la tudd soxna su tedd soo xam ne soxna su bàyyi tëxam la la cay dénk te dee na yuusi muridatahu zawjata ammihi Penda Jóob gafarallaahu lana wa laha kulla zanbin waxoo kon ma maam Penda Jóob la ci suñ Tuubaa di dénk lam ko waxoon mooy yow soxna si na nga muuru ba jot jigéen warta nekk ci biiru góor te muurul boppam yow soxna si sooy wax na nga wàcce sa kàddu jigéen kàddoom warta dem ca kaw yow soxna si maa ngi lay digal sa borom kër lu mu la digal na ko topp feek mu ngi nekk ci lu neex yàlla maa ngi lay digal na nga bari kersa jigéen dafay am kersa maa ngi lay digal na nga nekk ku tabe te yaatu te xir di joxe ñam xeetu dénkaane yooyu la def ci wasiyatu Penda Diop dénk ko soxna Penda Diop ngay jàng école wax naa ko léegi kun barakaati man àgg na ci nee na koo xam ne bu manqué dara ñëpp dégg kàddoom yaruwul te xale yi li ñuy toje ay kaar yëpp rek mooy dara manqué rek ñuy toj ay kaar rek di yàq bien boo xam ne àdduna bépp ko moom te ëllëg ñoo ciy duggaat ñu koy toj di ko saboote loolu lépp ñàkk yar lay tegtale ak ñàkk dégg sëñ Tuuba mu ni su ngeen eggee mujjug jamono ñett dina te gis ñett dina jafee gis la yan ak yan mu ni hmm. dina jafeetee gis ngeen ni doom ji moo gën baayam la defe naa àgg nañ ci ku ne da nga ko gën fuuf bàyyi meloon nii rek ah hmm. dina dégg ngeen ni ren moo gën a neex daaw dootoo ko dégg daaw di tane woon na sa waaye ren mel day gën a métti rek ah sëñ ko wax la ilaha illallah gis ngeen gis rakk ju gën magam daal di wax ni su boobaa ñett dina bari ñett réer meng yan ak mu ni su boobaa liggéeyukaay yi dina bari lool am am réer meng ñépp jàmbat su boobaa nu ni ko waaw mu ni téere yi dina bari lool dëgg réer meng ku ne ni maa nekk ci dëgg sama moroom nekkul ci dëgg mu ni su boobaa jigéen ñi dinañ bari lool sëy réer meng kenn dootul sëy koo laaj mu la divorcé naa wala génn naa ca sëy waxi sëñ Tuubaa la daani waaye su boobaa dénk naa leen juróom yu mat a xam na ngeen noppi lii mooy yaru sëñ Tuubaa na ngeen noppi wax ju bari baaxul yarantu bi gën ci mbindéef yi ne deen wax aw yiw te noppi na ngeen noppi dénk naa leen na ngeen jekki mooy toog seen biir kër di dox farata rek dénk naa leen na ngeen jaamu yàlla dénk naa leen na ngeen liggéey te lu ngeen am na ngeen ko doyloo su boobaa juróom mooy tax a raw na ngeen di def lu ngeen mën yanu lu ngeen àttan dugg ci bunt bu ngeen xam génnukaay ba daw pexem jigéen di ko moytandiku wakkiirloo yàlla su boobaa ni ngeen góorlu ba seen juróom yii bu mu xam seen juróom yii ci des xam nga yàlla wax yan ak yan seen juróom yii hmm. bu mu xam seen juróom yii ci des yan ak yan daal na ngeen fexe ba seen jur yi leen jur bu ñu xam mukk seen naqari deret tey kan moo amul ci këram doom ju ko la ñu néew la ci tey kan moo amul ci këram doom ju muy digal mu lànk du ci jaar ñu néew la ci mu ni su boobaa bu bu seen wéejur xam seen naqari deret mu ni dénk naa leen seen liggéeyukaay bu mu xam seen taayeel àgguñu cee ku ne li ngay fay ko boo seetee lu néew nga ci liggéey mérité woo <coughs> lay jox liggéey bu baax nga am ci salaire boo xam ne say moroom ak ci mbedd mi di ko wut nga dugg sëriñoo sëriñ ñaan lu pour am liggéey xëy am liggéey bu baax war a xëy huit heures toog ba onze heures ngay daagu quinze heures nga wàccaat weer dee nga laaj salaire te li la war defoo ko kon sëñ Tuubaa nee na dénk naa leen liggéeyukaay yi bu mu xam seen tàyyeel maa ngi leen di dénk seeni dëkkandoo bu ñu xam seen ñaaw teggin dëkk ak nit di def tapage nocturne man naa mu feebar nekk sa wet ngay tëgg a woy rek déggoo sëñ Tuubaa dëkk ak nit jël sa mbalit këpp ci buntu këram sëñ bi lii nag nga ne ko mbedd mi mbeddum buura déggoo sëñ Tuuba dëkk ak nit rayum xar seen kër yi dend njabootam di seet si sa njaboot xet gi di xeeñ njabootam doo ko yekkal déggoo sëriñ Tuuba dëkk nit mu deele doo fa taxaw jaal ko dëkk ak nit ëpple ko wërsëg doo ko dimbali kooku lu ngeen jote yaa ko tooñ sëñ Tuuba nee na maa ngi leen di dénk na ngeen góorgóorlu ba seen i dëkkandoo bu ñu xaw seen ñaaw teggin ñaata ngoog ñett bi ko ñeenteel seen njaboot bu mu xam seen nay bari na ñu ni mel yilifug njaboot man lu ni gàññ te bala ngaa joxe ñu médiatiser ko sa kër doo fa joxe dara danga caa nay doo dimbali doo dimbali kenn ko waxtaan te ku la ñëw du la gis dina nëbbatu nit ñi kon kooko déggul sëriñ Touba déggul sëriñ Touba njaboot gi buñ ci nay ñaataangoog ñeent ah, waaw mu ne denk naa leen seen juróomeel seen julli yu juróom bu ma xam seen yittey àdduna alaaji Abdoulaye Mbay peex hmm. gaa yi seen yoon nekku la ñuy sàgg ne julli léeg-léeg ñu dem ci koo xam ne di ko taxawal ci bunt di ko xaar di ko garde ngir lum leen di ko weeru de te man naa am balaa weer wee dee kooka dee mu dee te nit koo gis muy dem alaaji Abdoulaye Mbay peex hmm. yàlla boole na laak mille quatre cent quarante minutes ci vingt quatre heures moom nga am yow man moom laa am nit ku ne am nga junniy minute ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci bis bi yàllaa la ko may nag mhm. bi mu lay sàkk nag tàgguwul kenn ndax foofa moom rek la mhm. am juróom yoo xam da ciy génne loxo yi téyel ko boppam soo bëggee xam yan juróom la da ngay jàngi sóotu luqumaan jeexital ba te ni inna allaha indahu ilmu saa wa yunazilu lgaysa wa yaalamu ma fi l arham ma tadri nafsun maza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut ndax inna allah alimun xabir yàlla nee na juróom yi dama ci génne loxoy maa ko tey fi mu ne bis penc kañ lay xew kenn xamu ko téere yi à près nañ ba wax ni bisu àjjuma lay doon loolu d'accord nañ ci 18 heures et demie la àdduna tukki d'accord nañ ci